mbokk yi jaa ngeen jëf si teewlu bi Walfadjri leeru jamono seen émission bu yees euh, fagu ci euh, coronavirus euh, tax di ñu koy wax feebar bi li koy fàcc mooy prévention tax ñu war a waxtaanee lu jëm si wàllum prévention ndaxte mi ngi lëmbay àdduna tey ñu am mbégte am suñu plateau ki nga xamante ne moom mooy commandant Moustapha Kane di ingénieur de génie sanitaire nekkit chef de la division éducation à l'hygiène commandant ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax sëñ Assane di leen euh, jaajëfal aussi ci invitation bi nga xam ne invité nga nu ko ci sa émission bu bees bi te ñun yàlla ñuy ñaan yàlla suñu borom man ñi lépp lu ñu fa wax rek mu mën a indi njëriñ ci nit ñi. ñoo ngi it sa mbégte am na ci suñu plateau docteur Amadou Ba euh, di euh, fonctionnaire à la retraite nekk itam enseignant chercheur en politique de santé docteur ñu ngi lay jërëjëf Assane suma yi di leen remercier ci invitation bi ngeen ñu defal. pour nu waxtaanee coronavirus. mbégte moom la ñuy am it dalal Madani Sy moom mooy secrétaire général euh, syndicat national des travailleurs du nettoiement Madani Sy ñu ngi lay nuyu di di la sant donc euh, di nuyu sama naataangoo yi donc euh, di di leen di gërëm ci invitation bi. comme ni ma koy faral di waxee rek di ñaan yàlla émission bi yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin ñu ngi waxtaanee coronavirus mu daal di bi àdduna mois de décembre ba euh, fi ñu toll nii saa su ne euh, ñuy gën di dégg ni euh, bilan baa ngi gën di yokk si àdduna muy si si Sénégal alors docteur fi mu nekk nii bilan bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram def tey ji ban impression la lay la lay njëkk a def. li may njëkk a constaté mooy que les cas importés mu ngi wàññeeku te prévision yi ci defoon. Mm-hmm. mu ngi am c'est-à-dire ne woon nañ à l'échéance dinañ euh, wàññi les cas importé mm-hmm. les cas contacts suivis également au fur et à mesure dañuy réduire le stock mën nañ dem sax ba mu jeex mm-hmm. mais le problème c'est le cas communautaire c'est-à-dire les cas communautaires en matière d'épidémie fur la ne benn cas et puis bi installé wu la di des mooy naka lañ koy xeexee ba bu bañ a propagé wu te soo xoolee l'inquiétude du professeur Moussa Seydi se constate ne woon na sunu gaawul jël ay mesures de protection mbir mi mën na jéggi doyo te su jéggee doyo ñoom ci seen bopp dootuñu mën a faj mais mesure préventive nag suñ ko waxee presque wax naa ko ci plateau yëpp que fi mu nekk nii le gouvernement du Sénégal day xeex le Covid 19 mais en réalité xeexul le coronavirus. c'est naka. xeex Covid 19 bi mooy lutter contre la maladie. Mmh. c'est-à-dire di faj ñi nga xamante ni identifié nañ leen. mais ils sont déjà malades ou bien ils sont en contact avec la maladie mhm. ñu nekk en contact avec la maladie ñu ngi leen isolé di leen jël o cas par cas di def des tests soo gisee l'information que donne le cabinet du ministre daf lay naan on a testé tant de personnes mhm. mais kooku ci stock gi lañ ko jëlee mhm. am nañ temps de positifs mais am nañ tant de négatifs les positifs dañ leen di yóbbu faj les négatifs ñu libéré leen ña nga xamante ni ji également parmi ñi feebaroon te nu dem ba am tan man tan laa leen di tuddee su may wax tubaab wala may wax ñu nekk dans le cadre de la santé pure damay naan c'est des cas de rémission et non des cas de guérison pourquoi rémission mooy koo xamante ni ji traité nga ko au cas par cas c'est-à-dire symptomatiquement ba gisatoo benn symptôme de maladie ci moom su fekkente ne amatoo benn symptôme de maladie ci nit ki da ngay naan il est en situation de rémission ki nga xamee ne faj nañ ko ba mu wér non seulement amatul les symptômes mais amatul jàngoro ji il a retrouvé la plénitude de sa santé mais celui-là il est guéri donc il faut bien faire la différence entre la rémission et la guérison li fondé également samay propos mooy entre rémission ak guérison mooy au plan mondial on n'a pas encore trouvé le médicament qui guérit la maladie et on n'a pas encore trouvé le vaccin pour immuniser la communauté moo tax ma ne on est en train de lutter contre le Covid-19 c'est-à-dire la maladie mais on n'est pas en train de lutter contre le germe infectieux que lutter contre le germe infectieux c'est prendre des mesures barrières c'est-à-dire des mesures de prévention et malheureusement ces mesures de prévention sont de deux niveaux gis nga benn bi waa service d'hygiène la mooy l'hygiène collective par des mesures de désinfection malheureusement à ce niveau on observe la discrétion du service d'hygiène et on ne connaît on ne sait pas pourquoi dinañ ci ñëwaat beneen niveau bi mooy l'hygiène individuelle c'est-à-dire nit ki ak boppam hygiène collective c'est la protection collective c'est-à-dire nag mais hygiène individuelle bi mooy nit ki naka lay aaro ci ci jàngoro bi naka lay aaroo si jàngoro bi yaa ngi koy tudd buñ ko xoolee ak jëwriñ ñi nga xamante ni euh, moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram ak ñi nga xamante ñoom ñooy experts yi wax booba léegi dañoo teg ay mesures barrières yoo xamante moom lañ dégal askan wi ku si nekk ni ngay aaree sa bopp waaye sànq docteur dafa tudd lu leer wàllu survie d'hygiène parce que euh, falaa bëggoon na ñëw ndaxte euh, dañoo nemmeeku ni dans les années 90 2000 survie d'hygiène fa la a fës doon gën a gis ci ay actes yu muy posé yoo xamante ne koy def en ce moment là xawoon dem ba xaw a feebar bi sax tax na mu xaw a judduwaat tuuti est-ce que euh, jamono ji prévention bi nga xamante ne moom moo war ngir xeex yenn feebar yi euh, bàyyiwuñ ko de côté. waaw jërëjëf euh, sëriñ Assane bala tàmbali damay indi nuyoo suñu kilifa médecin colonel Moussa Dieng Sarr nga xam ne moo yilif service d'hygiène te it moom moo nu fi yabal. tàmbali woon naa léegi waaye waroon na maa tàmbalee nuyoo sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal daal bi tàmbalee ko ci monsieur Amadou Ba mi ak euh, sëriñ Madani donc question bi nga posé question bu am solo la ndax euh, wér-gu-yaram du rek faj prévention def ci am solo service gen nag nekk na service boo xam ne activité yi mu gën a def mooy activité de prévention euh, boo gisee maladie bi bala muy tàmbali le service d'hygiène tàmbali woon liggéeyam bi nga xamee ne rek seen dégg nañ ko Chine la commencé woon di préparé wu ndax xam nga boobu ministère de la santé tegoon na en place euh, li ñuy wax comité national de gestion des épidémies amit unité boo xam ne nii décision yi yéen jël ci comité bi ñoom ñoo koy mettre en œuvre fenn fu nekk service d'hygiène mi nga fa ndax euh, épidémie bi boo xoolee li ci ëpp ci li nga xam ne moo ko war a xeex muy la prévention euh, comme ni nga ko waxee service d'hygiène nee nga dafa mel ne gisuñu ko mais xëy na euh, danoo jegewul ba nga gis li ñuy liggéey mais Séré Dijel liggéey bu am solo mi ngi koy def ci en tout cas ci euh, épidémie bi nga xam ne euh, ñoo ngi koy def ndax liñ ko ci sas moom mi ngi ci liñ ko ci sas mooy balaa feebar bi ñëw amoon nañ plan boo xam ne nii ci la ñuy waxtaane ak nit ñi def ay causerie ndax danoo am ay agent yoo xam ne dañoo nekk ba ci euh, biir quartier yi nekk ba ci district sanitaire yi nga xam ne ñoom dañuy def ay prospection domiciliaire dañuy dugg ci biir kër yi di def seen liggéey donc lu mel nii biñ ko séenee rek lan dugal ay message yoo xam ne dafay jëm ci matukaay yi nga xam ne ak taxawaay bi nit ñi war a taxaw ngir feebar bi soit mu bañ yegg si wala même bu yegg si woon it nit ki boo ko dee respecté mën naa mën naa bañ a jël feebar bi loolu moom liggéey la boo xam ne euh, agent yi ñu ngi koy def brigade régionale yi ñu ngi koy def xëy na ñëwuñu ci télé bi di ko wax parce que bi nga xamee ne am nañu kaa nag nga xam ne kaa bi ñëw na nekkatul lu nekk Chine ñu di ko dégg waaye lu ne réew mi la defe naa ne fi mu ne ku gis communication bi gis nga ne service d'hygiène ci plateau yëpp ñu ngi leeral liggéeyam ni mu demee liggéeyam ni mu demee tamit mën naa mën naa cee tàmbali xëy na dana ñëwaat ci biir ci biir waxtaan bi sax mooy service d'hygiène dafa am ñaari pàcc yu muy liggéeyee benn pàcc bi yeete la ak waxtaan ak nit ñi ak joxe ay message ba ñu xam matukaay yi ak taxawaay bi nga xam nit ku ne moom la war a xam pour sàmm wér-gu-yaramam loolu moom tàmbaliwuñ ko rek ci maladie waaye nag lii moom dafa am part boobu da cee gën a am solo beneen pàcc bi phase technique la muy ay désinfection yoo xam ne dañ koy def ngir mën a xeex ak virus bi bañ a law loolu nag ñi ngi koy tàmbalee ci centre de traitement yi dama xamul dañ ci ñëw léegi ndit dinañ dinañ gën a yaatal ci ci opération ndaxte nemeeku nañ tax am na gox goxaan yoo xamante jamono ji ñu ngi fay gis service d'hygiène hmm. waaye da nga ne euh, prévention moom mooy seen liggéey euh, commandant parce que euh, ku ne prévention ne da dox kon ci diggante ñi askan wi ak l'hôpital bi hmm. ba duñ fa egg hmm. mais yéen bu ngeen di dox ci diggante askan wi ak l'hôpital bi am na ñuy door dox seen diggante ak yéen muy ñiy liggéey ci wàllu combalet bi ma daani di secrétaire général syndicat nemmeeku jamono ji euh, on parle souvent de de prévention on parle de de de, de salubrité jamono ji mbeddi Ndakaaru yi gën ka sax lay gën a wax ndaxte mbeddi Sénégal yi sax la ñuy wax mais mbeddi Ndakaaru yi en particulier euh, salubrité bi demeewul noonu insalubrité bi dafa bëri euh, ñu ngi ne mesure barrières yi par exemple on te booy tisoli wala ngay njandu ñorul si musuwaar benn yoon nga koy utiliser sànni ko si mbalit kii war a jël mbalit boobu est-ce que am na protection yi war ba fa nga nga xamante ne maa ma defee loolu moom du laal merci Assane donc euh, maa ngi content trop ci question bi tout di wax ni aussi je suis inspecteur euh, à l'UCG mhm. unité de coordination pour la gestion des déchets donc di nuyuwaale notre coordinateur Massiam et tous les travailleurs euh, de l'UCG mhm. par rapport à la question donc xam nga dañoo ne gouverner c'est prévoir te ñun dañoo nekk ci nettoiement ñun nous avons une mission de santé et de service public suñu devoir mooy fexe ba askan wi bañ a jànkonte ak mbalin on parle de valorisation des déchets usine de traitement recyclage tout ce qui s'ensuit mais la première des valorisation mooy la valorisation des techniciens de surface ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey nekk en contact direct avec les ordures en contact permanent avec les odeurs pestilentielles avec toutes sortes de maladies tey bi feebar bi ñëwee ñu bëri ñu ngi wax le corps médical di leen féliciter di leen encouragé ci taxawaay bi nga xam ne def nañ ko ngir virus bañ a law partout dans le Sénégal malgré que gis nañu c'est une pandémie qui est mais Assane da nga posé question bu am solo waa mais ki koy jël na ki nga xam ne mooy jël mouchoir bi nga xam ne ni ku feebar kii moo koy dugal ci mbalit mi nee naa mbalit mi ay jinne jëliñu ko ay nit a koy jël donc ñi koy jël ñoo ñu mun naa ne ñooy le maillon le plus essentiel du dispositif quel que soit le dispositif bi état bi mettre en place suñ demee tey bay ne ñu ngi mettre en place euh, benn force Covid 19 ba ay fonds tout ce qui s'ensuit di motiver le personnel soignant mais et le personnel du nettoiement qui est en contact ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jël mun naa ne particulièrement nous sommes les plus exposés chaque jour que Dieu fait ñun ñu ngi ramasser deux mille quatre cent tonnes d'ordures par jour deux mille quatre cent tonnes ñooy jël les ordures ménagères les ordures non ménagères les ordures chimiques biochimiques ñooy jël euh, les déchets biomédicaux te xoolal tey on a des collègues yu nekk à Mbëbës waaye ñooñu tey ñooy jël tout sortes de d'ordures tey su fekkoon ne par exemple tey les mesures préventives jëluñu ko mais kon ñun ñëpp dem nañ toggee ci suñu kër la preuve quand le nouveau coordonnateur de l'UCG Massiam bi mu jëlee fonction le 23 janvier 2020 ci diggante bi feebar bi amuloon propension bi nga xam ne actuellement am na ko mais bi mu commencé law la mesure bi ñu njëkk jël muy par rapport ak prévention agent muy distribuer le matériel de protection qu'il faut muy ci wàllu gant muy ci wàllu masque muy ci wàllu tenue de travail muy ci wàllu dàll mais aussi muy ci wàllu ay kit savon yeeg tout ce qui s'ensuit pour que au moins agent bi mën a euh, fàggandiku parce que tey nous nous sommes des porteurs de germes te su fekkee ne ki ki koy jël tey nekkul ci dans ces conditions là dafay métti rek commencé nañ leen distribuer mais teewul ba tey y a ce appelle la psychose de la peur psychose de cette peur la mooy que euh, quel que soit aussi du lu nit ki munti euh, fagaru souvent da ngay gis condition yi nga xam ne agent yi yenn dañ koy nekkee bañ nañ ba nañ leen képp koo xam ne tu n'es pas équipé toi képp koo xam ne ne jox nañ leen ce qu'on les EPI muy les équipements de protection individuelle soo ko solulee toogal sa kër parce que tamit fagaru moo gën faju donc je pense que ñun ñi nga xam ne tey ñooy le techniciens de surface ñun la ñu war a gën a bàyyi xel parce que en dehors du corps médical en dehors du dispositif bi état du Sénégal mettre en place mun naa ne ñun ñooy le moyen le plus essentiel alors docteur ab euh, ma daani si li wax léegi di posé waat problème mu euh, mesures yi nga xamante ne état jël nañ ko gis nañ mesures yi nga xamante mooy mesures individuelles yi muy euh, les gestes yi nga xam moom la dégal digal mesures yi nga xamante ne nguur gi teg na ko ba indi état d'urgence est-ce que mesures yooyu fàttewuñ ci benn point Assane il y a des confusions de rôle mm-hmm. entre UCG ak service mm-hmm. comment ça parce que soo jëlee média médaillon Moustapha Kane bi mm-hmm. liñ ci bind mooy xeex tilim daan feebar mais tilim mbalit ñii leur mission c'est de veiller à la salubrité c'est de contrôler également les frontières c'est-à-dire faire la police sanitaire c'est relever les infractions d'hygiène c'est faire de la sensibilisation comme ni mu ko waxee soo xoolee donc loolu yëpp ci aar jaww bi la ak aar askan bi art. Ils sont dans la prévention, mais pas dans l'enlèvement des ordures, pas dans le traitement des ordures. Encore que suñu ne prévention de ordure rek mm-hmm. du rek mais ñii ils sont dans le rôle pleinement dans le rôle mm-hmm. mais encore que des na parce que suñu la ne enlèvement des ordures mm-hmm. c'est depuis la collecte jusqu'au traitement mais ñii il font la collecte, il font le transport, mhm. ils font l'évacuation et le traitement final. traitement final dafa am ñetti fànn dafa am une forme d'incinération une forme de compostage ak une forme également d'enfouissement xawma ban forme lañu ciy def su fekkee ni def mais beneen bi mooy au-delà même de cette confusion de rôle mhm. gis nga service d'hygiène bii joue un rôle capital dans la santé publique. Je dis bien un rôle capital dans la santé publique. Parce que sans le service d'hygiène, sans les mesures d'hygiène, mm -hmm. les hôpitaux seraient envahis de malades. Mm -hmm. Or, depuis 1977-78, avec l'avènement des soins de santé primaires, l'Organisation mondiale de la santé de Fodil, le service d'hygiène et la prévention en général, au premier rang. bi ngeen di dégg mu nuy wax santé pour tous en l'an 2000 ak santé pour tous au vingt et unième siècle mais yëpp danoo ne il faut lutter contre l'élitisme et la médicalisation mais surtout mettre l'accent sur la prévention mais ñii kenn dimbaliwu leen pourquoi ma ne kenn dimbaliwu la l'État ignore totalement le service d'hygiène je dis bien l'État ignore totalement le service d'hygiène et je peux m'expliquer tout de suite mm-hmm. le ministère de la Santé n'a aucune considération pour le service national de l'hygiène. Je peux donner également le des même s'ils sont militaires, pour les J'ai dit, c'est des services paramilitaires et ils ont été redynamiques. Gis nga mhm. le service d'hygiène ñaar lañ koy gërëmee Mamadou Diop ancien ministre de la santé feu Mamadou Diop et feu Issa Mbaye Samb à partir ces deux ministres il n'y a aucun ministre de la santé ici au Sénégal qui a donné de la valeur au service national de l'hygiène et je vais m'expliquer ah de manière très détaillée gis nga le service d'hygiène ñoom it ci seen bopp kenn du ñoom parce que de jour en jour mm-hmm. il se dévalorise c'est-à-dire autodévalorisation parce que simplement dafa peut-être ils sont liés par le statut militaire mm-hmm. mais ils mais ne sont pas offensifs regarde ñoom ñooy jël tamit les décisions politiques moom laa lay wax xoolal leur engagement, leur détermination et surtout la place qu'ils devaient occuper dans le système national de santé. Suñu demee ba tey à l'heure où je vous parle depuis quand le service d'hygiène n'a pas recruté son un personnel il y a deux ans nous jeter le service d'hygiène recruter presque une centaine de personnes encore que c'est pas des cadres un autre indicateur et c'est pas Moustapha qui va me démentir gis nga d'ici deux ans en l'an deux mille vingt le service du jeune n'aura plus de cadre parce que ñoom Moustapha ñëpp dañuy retraité il n'aura le service du jeune n'aura plus de cadre au moment où je vous parle le service du jeune n'a pas un effectif de plus de trois cents personnes sur l'ensemble du territoire national au moment où je vous parle pire le service national de l'hygiène y compris ces quatorze brigades régionales sur l'ensemble du territoire amul benn brigade boo xamante ni moom moomal boppam le service en dehors peut-être Kaolack euh, Kaolack Ziguinchor peut-être et saint ñi si des ñëpp ils sont en location y compris le service national de l'hygiène et le service régional d'hygiène de Dakar donc su ma la déggee docteur day dina difficile ñu gagné euh, ce combat parce que boobu ba léegi ñu ngi naan combat bi prévention moom moo koy gagné ñi war a def prévention boobu euh, doole ñu leen. waaw euh, moom de situation bi mu pendre quand même. Mhm. il faut dire que service d'hygiène mi ngi koy vivre. Mhm. ndax loolu nekkatul un secret. Mhm. Hmm? nekkatul un secret parce que même le président de la république am na trois conseil des ministres yu jàll yoo xam ne dafay bind nommément il faut renforcer le service national de l'hygiène en effectif et en logistique loolu defe naa ne une voie aussi autorisée à ce niveau-là bu demee bu demee ak trois fois de suite mu koy def dans un conseil des ministres nekkatul lu ñuy laam-laamee c'est un constat boo xam ne parce que ñoom itam jot nañ ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir euh, service bi jot nañu kayit yi nga xam ne nii wane nañ ne bu fekkente ne fi ñu bëgg service d'hygiène dem fa mm-hmm. lii la laaj jot nañ ko gis ko ñi ngi am yaakaar nag ci ne xam naa ne bu mbir mi yeggee ba foofu ba moom mu àddu ci lu man ñetti yoon xalaat na lool ne euh, euh, situation Covid bi ñuy vivre aussi dana tax defe naa ne bu ñu ci génnee service d'hygiène bu bees tàq war na génnaat ndax quand prévention ci suñ réew yi dafa ëpp solo ñuy daw topp ci feebar bi waaw daw topp ci feebar parce que feebar bii nga xam ne. professeur Seydi bi nga xam ne moo nekk ci centre de centre centre de traitement bi moom wax na ne bu ñu bëggee gagner guerre bi c'est par la prévention et non par la prise en charge parce que prise en charge boo xoolee c'est assez conscrit maîtriser nañ ko ñi ngi koy def ni mu waree alhamdulilah booba léegi ñaar bari na sax parce que benn des rek bari na waaye nag prévention bi mooy tax du law ba yegg foo xam ni sax ëllëg ñoom dañuy submerger ba xëy na ni ñu jëlee malade yi en charge dootuñu ko mën loolu euh, defe naa ne constat la boo xam ne ñëpp gis nañu ko ci defe naa ne autorités yi danañ ci jël ay euh, ay mesures. alors service d'hygiène war a def liggéey bu solo ci euh, feebar bi nga xam ne mooy Covid 19 jamono ji muy def ay sorties si yenn gox yi gis naa fi mu ngeen dem fu mel ne Ngor ngeen dem fu mel ne Biscuiterie yi est-ce que naka lay defee dangeen ngeen di jóg spontanément dem si gox yooyu wala lo da ngeen koy def ak collaboration ak mairie bi. waaw xam nga moom laa tàmbali woon leeral léegi liggéeyu service d'hygiène problème de moyen lay posé waaw waaw non dafay ñëw dafa damay ñëw ci loolu xam nga service d'hygiène dafa tàmbali woon avant avant maladie bi ñëw wax naa la leen aussi bi maladie bi ñëwee rek mu am ay cas dafa am rôle ci centre de traitement yi parce que dañoo war a protéger ñi nga xam ne ñooy faj maladie moo xam ñi ñuy faj la moo moo xam agent yi nga xam ne ñooy toppatoo set gi foofu agent yi nekk yëpp ca loolu mel ne jam euh, Diamniadio ba Touba ak euh, Ziguinchor yëpp dañ fa am équipe yoo xam ne ñoom traitement euh, maanaam désinfection centre de traitement yi ak dimbali prestataires yi ba du mën a contaminer waat seen bopp moo moo moom liggéey boobu la ñuy def léegi nag bi nga xamee ne tàmbali na am ay cas cas yoo xam ne nii dañ koy tuddee ay cas communautaire yooyu boobu leen tàmbali nag di def traitement de grandes envergures parce que xamatoo à peu près fan la virus bi yem ak fan la nekk ndax ci diggante bi amoon na li ñuy tudd ay cas contact nga xam ne bépp cas suspect boo xam ne am na service d'hygiène dafay dem ci kër googu traité ko waxtaan ak waa kër ga fàttali leen les règles les règles d'hygiène à prendre ci day participer aussi ci contact yi nga xam ne jël nañ ko ci cas suspect bu ne waxtaan wan war a waxtaan ak ñoom ak ak li war a def ci seen kër loolu da da daf koy def maintenant nag euh, traitement bii nga def parce évolution malade bi maladie bi mooy def toujours ñu ñuy réajuster suñuy intervention parce que mënoo cas bi am rek nga daal di maa ngi jóg damay pomper Dakar lenn lu nekk day am fu muy yegg foo xam ne nii dafa lay imposer stratégie boo mettre en œuvre loolu nag moo indi traitement yi ngay wax nga xam ne dañuy dem ci marché yi nga xam ne ay lieux parce que bu bi confinement bi jàllee am na ay lieux yoo xam ne kenn mënu ko bàyyi mu mel ne marché yi mhm. établissement administratif yi centre de santé yi donc yooyu nga xam ne nit ñi ñu ko bàyyi il faut ñu koy désinfecter régulièrement ba kenn xamul mais virus bi bañ fa bañ fa bañ fa bañ fa propagé. Euh, ma daane si euh, fee wàllum euh, ñàkk moyen boo wax na si li gàllankoor service d'hygiène ba nga xamante ni liggéey bi mu waroon def laataa lii di ñëw pour mu def ko mu matee day jafe sànq tudd nga ni problème mooy it dal na leen si seen liggéey ñi nga xam ne yéen war a tourné mbalin moomu est-ce que tamit jamono ji defuñ li nga xamante ne loolu la docteur doon wax sànq jéem xeex ak Covid bañ a xeex ak soo xoolee docteur confusion de role bi mu wax mhm. ak aussi nuance bi am entre la maladie ak ak corona bi mhm. bu fekkee ni ñun ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey parce que bañ naa ko booy sànq dama ne ñun nous avons une mission de santé et de service public mhm. ñun suñu devoir mooy fexe ba képp ko xam ne ni yaa ngi dund di génne mbalit nga bañ a ak mbalit tey ñu ngi naan bu nit ñi dajaloo mais xoolal tey bu oto mbalit klaxonné bu klaxonné rush am on ne sait pas kan moo ko am ak ku ko amul donc ñun de moo tax ma ne la particulièrement nous sommes exposés et d'ailleurs les travailleurs notamment ont toujours été stigmatisés ils ont ils sont des laissés pour compte absence de considération absence même de respect par rapport ak fonction bi nga xam ne moom lañ def mu nekk une mission régalienne boo xam ne ne état moo am mission moo war a jël ay doomu ay doomam mettre leen dans les conditions de performance une mission des moyens et je pense qu'aujourd'hui quand on entend le nouveau le, le nouveau coordonnateur de l'UCG avec le discours bi mu andi mu ne moom il n'est pas venu pour vendre des ordures mais il est venu pour vendre de la propreté en vendant de la propreté c'est parce qu'il y a il y aura forcément un changement de paradigme mm-hmm. et le changement de paradigme consiste d'abord à mettre les travailleurs dans les conditions de performance ba pare fexe ba motiver leen davantage par rapport ak tey seen i waa wàllu liggéey tey soo xoolee depuis un certain temps tout a constaté am na on a mis en place ce qu'on appelle un plan d'urgence de nettoiement de la capitale la première phase jeex na ñu entamé la deuxième phase vous avez vu les jeunes yiy liggéey guddi ak bëccëg bañ nañ ko ba avec le le couvre-feu bi mu amee ak état d'urgence bi dafa am ay dégâts collatéraux d'ailleurs nous avons même moi j'ai été été même pour dire au ministre de il faut une dérogation pour les agents de nettoiement ceux qui travaillent la nuit vous regardez Dakar Plateau et Médina foofu c'est une ko liggéey souvent bëccëg forte concentration population mais guddi gi déjà bi mu amee bi ñu dawalee une semaine après ci la le préfet def ay dérogation jox ko travail vous avez constaté que fan yi mhm. au moins am na benn suqaliku boo xam ne commencé na am te boo seetloo c'est deux mille six cent agents ñoom ñoo nekk sur le terrain et je pense que aujourd'hui Assane wax nga ko léegi pour ne pas que propagation virus bi gën a dem gën a law il faut que ñu génne les moyens mettre ko à la disposition des travailleurs parce que tey il faut des mesures euh, euh draconiennes ñu génnee les xam nga les moyens mettre ko à la disposition des travailleurs pour que ñoom ñu sentir ne au moins tey état bi bàyyiwu leen mais dangay ngay ne tey depuis barki dem ba léegi les travailleurs ils me disent mais mais discours président de la République dégg nañ ko mhm. mais il du tudd bugg waa nettoiement te or ka ñun ñooy le cœur du processus le point focal c'est nous. justement Madani bu ñu la déggee dafa mel ne mesures ñu jot a jël yëpp amul benn boo xamante dañ leen woo toog waxtaan ak yéen ci mesures yi alors que yéen bokk ngeen ci ñi war a wax. mais xam nga par exemple à au lieu je je me tout temps que ni man je le dis tout temps que ni y a un adage qui dit tout ce qui est fait pour toi sans toi est fait contre toi malgré que état moo am mission bi ñun nous sommes des acteurs nous sommes représentés par l'UCG nous avons un vraiment qui se bat chaque jour que pour que les travailleurs puissent ñu améliorer seen conditions sociales mhm. mais aussi ñoom il faut que ñu fàttaliku ne ñun nous sommes des syndicalistes et le rôle premier d'un syndicat c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs mhm. aujourd'hui su fekkee ne les syndicats n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle tey on avait mis en place ce qu'on appelle le Sénégal zéro déchet dafa mel ni tey Covid 19 bi mu ngi remettre en cause le Sénégal zéro déchet te te nag mission la boo xam ne waruñu ko fàtte regardez la mission des bi nga xam ne ne ministère bi defoon na ko ci wàllu désencombrement ci wàllu déguerpissement ci ci ci wàllu occupation anarchique de la voie publique tey bi couvre-feu bi amee dañoo jël loolu yëpp euh, ñu tegandi ko. Mhm. tey nit ñi te mais mais mais mi ñi ngi naan confinement mais tey la tey dëkk bi gën a waala xam nga tey la gën a af mbir mi wulee ñaay donc je pense que il faut qu'on y aille avec stratégie qu'on yaay avec tact pour ne pas que la psychose de la peur dem. vers non seulement les populations mais aussi que ñi koy liggéey aussi tamit ñu fexe ba au moins que seen condition ñu change ko radicalement pour que ñu xam ne ni pour xeex mbir mi foog mu am une synergie d'action autour de l'essentiel mhm. parce que xool tous les corps de l'État doivent s'unir je pense que c'est pas seulement le ministère de la santé moo moo war a taxaw nekk au devant de la scène non je pense que c'est une organisation boo nga xam ne ne ñëpp ci am wàll surtout nag ñun man je dis encore une fois de ñoo gën a am solo ci mbir mi mhm. su fekkee nag sàggane nañ ñu dama ne lay raam ca ñag ba la jëm tey kenn ñaanul yàlla tey mbir mi law donc fi état bi taxaw ñu ngi saluer les efforts bi état bi def ne serait au moins ñëpp gis nañ ne tey état bi jël na les devants malgré que tey la propagation du virus mi ngi dem dans dans un dans boo xam ne exponentielle kenn kenn kenn xamul yàlla kese moo xam donc je pense que lii am solo daal mooy que nit ñi comprendre que ni feebar bi am na mais ba tey am na ñoo xam ne yaakaar na ne feebar amul. alors docteur euh, phrase yi mooy euh, restez adopter les mesures barrières mais est-ce que bu ñu xoolee loolu ni mu koy defe ak suñu environnement immédiat ni mu mel du setum ganaar weesu na setu ganaar mais c'est un danger de santé publique imagine suñ ne woon confinement sans l'intervention du service national de l'hygiène dans le saupoudrage mais également dans la désinfection de masse mm-hmm. mais nous nous rester chez vous cela veut dire que nous sommes en semi-confinement. Mhm. mais bala maa ñëw foofu dama bëggoon préciser gis nga ces deux services là il n'y pas un service plus important et plus stratégique dans le développement d'abord social dans le développement sanitaire et dans le développement économique de tous les pays parce que ñii nooy préserver la santé des individus gis nga soo nee hygiène xam nga sànq nee naa la il faut dissocier l'hygiène à la propreté parce que ñi ils font de l'enlèvement mais ñi ils font la science de l'hygiène xam nga hygiène lan la hygiène c'est pas une activité c'est l'assainissement qui est un ensemble d'activités mais ñi c'est des cadres qui réfléchissent sur la stratégie à maintenir salubre notre environnement c'est foofu la ñuy naan la l'hygiène c'est une science qui permet à une société ou bien à un individu de maintenir sa santé voire même l'améliorer loolu mooy hygiène kon gis nga waxulu benn yoon mais assainissement bi c'est faire en sorte d'entreprendre des actions de lutte contre tout ce qui est cause de nuisance la nuisance moom mooy conduire à la maladie foofu la rôle ñi am importance puisque ñi en faisant l'enlèvement l'évacuation et le traitement des ordures ménagères il lutte contre trois fléaux gis nga fléau bu ci njëkk mooy les odeurs jëlal sa mbalit nga bàyyi sa kër pendant vingt quatre heures doo fa toog firnde bi mooy sa douche soo ko raxasul régulièrement ci sa biir kër doo fa dëkk beneen lutte bi c'est la lutte contre surtout l'entassement et le volume des ordures tey jii nga bàyyi fi ordures yi conditionné ko fii rek bàyyi ko fa ay fan ça va prendre de l'espace et au fur et à mesure il y des vers il y a des rats il y des chats il y des souris et n'importe quoi qui viennent trouver refuge et le troisième niveau maintenant moom mooy euh, lutter contre la nocivité puisque germes yooyu ma la wax qui vont se développer dans l'entassement de ces ordures ménagères ça devient nocif et ça va même s'attaquer à la santé des individus foofu lay ne fii fii nu waxee léegi euh, Moustapha wax na ko léegi mu ne le président de la République a pris des mesures au niveau de l'instance le plus élevé du pays c'est le conseil des ministres mais man je prends mon courage à deux mains pour dire que c'est un médecin après la mort parce que combien de fois le service d'hygiène a été bâillonné bâillonné en tête parce que ne disposant pas de moyens suffisants su amul moyen naka lay planifier ses activités c'est-à-dire que euh, Moustapha c'est un paramilitaire il est en train d'utiliser un terme politique mais la vérité c'est que le service d'hygiène comme les hôpitaux sont malades et le service d'hygiène c'est le parent pauvre du système de santé au Sénégal alors qu'il était il devait être avant-gardiste devait être également au centre des préoccupations de tout le monde voyez dans un passé récent Assane mais déggoon ngeen fi président ne day recruter des hygiénistes day créer même une brigade d'hygiène mais à ce moment où était le service d'hygiène qui est régi par une loi depuis 1981 si je ne me trompe c'est la loi 91 12 et qui a un instrument de travail qui est également une loi c'est le code de l'hygiène la 83 71 su ma juumul yooyu yëpp am nga ne da ngay créer benn brigade d'hygiène da ngay recruter encore des agents d'hygiène beneen bi on avait ici recruté des préventionnistes le service d'hygiène qui existe nga ne da ngay créer ay préventionnistes on a recruté plus de dix mille où sont-ils mais tey lan leen gën a soxla anañu justement c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure recruter na leen euh, ils sont dans l'état ils sont dans la fonction publique où sont-ils système sanitaire bi nemmeetuñ ko leen euh, nemmeetuñ si ñi nga xam ñoom ñooy préventionnistes yi nga doon tudd noonu alors que recrutement bi massif la woon alors qu'ils sont à l'intérieur de l'administration où sont-ils il faut les identifier les extirper d'où ils sont et les mettre au à la disposition du service d'hygiène et qu'ils portent les verres morels et les désinfecteurs pour lutter contre le coronavirus où sont-ils madame anañu vous êtes dans votre rôle de manière très efficace même si vous n'avez pas suffisamment de moyens mais ñii ils ont l'engagement gis nga Moustapha bi parce c'est pas parce qu'il est là je l'ai connu depuis 1983 Alla Ngom ak euh, le colonel Dieng Sarr je les connais leur engagement mais nag un militaire sans armes est inefficace dans son combat et c'est ça le problème un militaire sans arme noonu la leen tuddee jamono ji seen seen seen xeex du yomb waaye donte sax yéen a ngi jéem a def ay ay jéego boobu léegi sànq da nga tudd lu wàllu euh, jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu si wàllu feebar bi ñi ko gën a jege muy euh, corps euh, sanitaire bi nga xamante ne ñoom ñoo jege ak nekk en contact ak malade ñu ne ma am ngeen ay agent yoo xamante ne ñu ngi ci service yëpp mm-hmm. ñi nga xam ñoo leen di jàppale ñuy summi seen i tenue di ko solaat est-ce que ñii bokkul si ñi nga xam ne waroon ngeen leen jàppale ndax ñoom euh, ni ñuy summee tenue boobu ak di ko solaat bu fekkee jege nañ feebar boobu du leen indil jafe-jafe bu mu war buñ ko mën a indiwaat ñoom si askan bi waaw mais nag quand même ci ci gestion Covid bi quand même bokkuñu niveau bu nekk xam nga ki nga xam ne dafa nekk directement avec le malad kooku moom il est exposé directement te déjà gis ngeen ne sax même en Europe ñiy faj feebar da leen dal ñuy daanu malgré euh, kii euh, précaution yi jël donc centre de traitement yi moom noonu lañ koy traité comme ni ko euh, docteur waxee léegi confusion bi mu wax loolu xam naa nag xëy na ci nit ñi lay am confusion boobu mais ñun ñuy liggéey moom xam nañ kenn ku nekk ci wàllu sat gi li la ci war mais confusion boobu li mu wax day am ci nit ñi parce que souvent da ngay dégg ñu ne la ah service d'hygiène yéen mbedd mi dañoo gis léegi dafa bari mbalit mhm. donc parce que yaakaar na ne ñun ñoo ko fa war a jëlee ca boo demee sax c'est parce qu'on a bien travaillé que mbalit mi di génn ci kër yi di dem ci mbedd mi parce que da ngay wax nit ñi nan génnee mbedd nan génnee seen mbalit yi euh, donc am na collaboration nag bu étroite bu war a am entre UCG ak service d'hygiène ndax ñun comme ni ko euh, ba waxee ñun dañuy euh, maanaam wax na ko léegi xeex xeex xeex tilim du rek ñëw jël mbalit mi mm-hmm. mais wax ak nit ki ba moom boppam mu conscient ci ci ci tilim lan la ko mën a indil ci feebar ak ban taxawaay la ci war taxaw service d'hygiène loolu mooy liggéeyam waaye war nañoo bu ko liggéey bi baax nag collaboration ministère yëpp yi nga xam ne ñooy liggéey ci affaire set dafa dafa dafa war. ñoom bu de buñ demee ci au niveau opérationnel. Mhm. dañuy liggéey ak brigade d'hygiène yi. ndax ñoom bu fekkente ne am na système bu ñu bëgg a teg en place. bu leen service d'hygiène liggéeyalul loolu pour nit ñi conformé wu ci dañuy am ay difficulté mm-hmm. loolu mi ngi am moo tax ma ne confusion bi xëy na ci ci ci ci nit ñi mën naat nit ñi parce que euh, mais boo nee ci biir da nga comprendre ne kenn ku ne am na waaye am na aussi collaboration boo xam ne nii mu ngi mi ngi dox si suñu diggante. Mm-hmm. Euh, ma daane dama am benn conviction bu mu am euh, bërki démb dama dégg maire bu Médina Bamba Fall ne mbirum mbalit yi ci wàllu marché yi. yéen la incombé mais du seen rôle la. Ah, loolu tamit il faut ko. parce que la gestion des marchés incombe aux collectivités locales. ñun nos agents de l'UCG ils n'ont pas le à l'intérieur des marchés commune bu ne am nga un budget consacré au nettoiement am nañ ay agents du nettoiement ñoom seen i agents du nettoiement ñooy génnee mbali mi nekk ci biir marché bi teg ko ci grande artère yi nous on ne la gestion des marchés est dévolue aux collectivités locales je l'ai dit depuis vingt ans maa ngi koy wax te loolu su fekkee ne par exemple amul benn synergie entre ñun ak collectivité te ñëpp xam nañu ne nettoiement compétence transférée la mais collectivité locale lan lañ lay wax elles te disent que l' a a les problèmes au détriment des moyens financiers donc je pense que aujourd'hui il faut une synergie d' action autour de l' essentiel que ñun ñi nga xam ne ni ñooy UCG ñoo war a def nettoiement ñoo war def l' enlèvement des ordures donc ñoom en appoint lan lan la ñu war a def pour dimbalee les agents du nettoiement mooy mais tey malheureusement nos marchés sont sales 90 pour cent des marchés am na ay marchés yoo xam ne ñu ngi fi depuis 50 ans kenn mosu leen nettoyer tey quand quand on aujourd'hui certains maires di nettoyer moi je salue les, efforts yi Bamba Fall di def quel soit ak fu mu munti far il faut avoir le courage de dire que en tout cas wane exemple la moom je prends moom Cheikh Gueye ainsi de suite donc c'est des maires yoo xam ne tey ñun ñu ngi ñuy jàppale dans l'exercice de nos fonctions mais ñoom nañ xam ne la gestion des marchés c'est ñoo koy gérer ñun on ne fait que prendre les ordures ménagères et la preuve regardez à l'approche des fêtes occupation anarchique de la voie publique bi am ñoom ñooy fayeku les marchands tabliers ñoom ñooy fayeku euh, les marchands ambulants et tout ce qui s'ensuit ñun bu ñu ñëwee lal la ñuy def dañuy ñëw fekk même les voies passantes là sont occupées par les marchands donc je pense que tey foog li may faral wax ni ñu xam ni nit ñi wala dañoo am une conscience citoyenne d'abord ñu xam ne cette pandémie là benn nit mënu koo xeex c'est pas l'affaire du président de la République c'est un problème de changement de comportement responsable à tous les niveaux et je dis que quels que soient euh, les efforts ak volonté affichée si les populations ne suivent pas si les populations sont récalcitrantes tey couvre-feu lañ def mais da ngay gis ñoo xam ne tey ñu ngi défier la force publique moi je dis que nous sommes dans un état de droit mais aussi il faut que force reste à la loi donc ñun ñi nga xam ne ñoo koy liggéey je pense que tey bu ñu demee en guerre <laughs> mais une mission des moyens wax nga ko sànq sooy dem guerre nañ jël jumtukaay jox la sooy dem guerre nañ la motiver davantage sooy dem guerre nañu fexe ba yow mi koy liggéey nga aar sa bopp aar sa njaboot waaye nag nee nañu euh, balaa nga ne naam ne fa je pense que tey ni état bi jëlee disposition yi tey nii ñun li tax ñu gën ci am yaakaar mooy que gis nañu au moins y a une volonté affichée d'abord de vaincre ce péril mais aussi ñu war a xam ni que que tous les acteurs yi nga xam ne tey ñoo nekk euh, en contact ak euh, façon musiba yi ak jàngoro yi. Mm-hmm. donc ñooñu tey su fekkee ne ñu ngi jooy par exemple tey man à chaque fois je le dis dans le secteur que nous bu fekkee ne par exemple les agents ne sont pas motivés mais le travail là il sera toujours voué à l'échec te tey on a mis en place ce qu'on appelle les CIVD mooy les centre intégrés de valorisation des déchets mm-hmm. nettoiement cher la. quand un maillon de la chaîne bu daggee mais c'est des conséquences à n'en plus finir tey on parle de valorisation des et c'est normal je pense que tey euh, fii feebar bi toll e, e, effectivement xëy na feebar bi dem na ba làq liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko doon def mais warul tere que lépp loo xam ne ni muy sunu mission muy sunu mission de santé et de service ñu def ko na mu waree pour que liggéeykat yi vraiment war a mën a gis seen bopp pour que population la ñuy liggéey et que tey mais débordement yi ngeen doon dégg nii ci mbedd mi amatul. Mhm. parce que tey les travailleurs vraiment se sont surpassés. d'accord donc nag képp koo xam ne nag yaa ngi def sa war warugar. Mhm. am na moment moment boo xam ne nag état moo bi nga xam ne moo war a taxaw état génne na plus de 64 milliards ne mi ngi koy def di ko motiver. mais 64 milliards yooyu tey ce fonds là aujourd'hui nul n'est mieux placé que les techniciens de surface pour bénéficier de ce fonds là et man le président de la république di notre ministre de tutelle pour wan ko ni les techniciens de surface chaque jour que Dieu fait ils doivent avoir des primes supplémentaires par rapport au travail et au risque yi nga xam ne chaque jour ko jëfee ñu ngi koy jànkonteel euh, pour bañ a jël risque yooyu euh, damay des ak euh, yow ci marché yi nga xamante tudd nañ ko ndaxte ñu nemeeku ko bi mbiri tàmbalee ba léegi ñi ngi leen désinfecté gis nañ marché yoo xamante ne ay fukki at ñaar fukki at kenn mosu ko raxas kenn mosu koo fobeere kenn mosu ko bale tey ñu ngi dugg ak service d'hygiène ak mairie yi di di ko pompé di di désinfecté est-ce que jamono ji dafa mel ni jànguñu dara si Ebola ak li mu def si yenn réew yu nekk si Afrique ba tax prévention ñu daal koy bàyyi ginnaaw ba nga xam jiw nañ ministère bi sax dañu ko doon ndax ministère euh, de la santé et de la prévention prévention bi dindi nañ ko sax si noonu non prévention mi ngi ci biir ba léegi euh, xëy na figurewul ci turu ministère mais am na direction de la prévention qui existe toujours euh, dégg nga léegi docteur mu ne am na ay préventionnistes yooyu ñu ngi ci système bi ñoom ñoo ñu directeur de direction de la prévention ñoom ñoo leen di gérer. Mm-hmm. mais comme comme traitement yooyu nga wax ci ah, mooy mooy li ma la wax rek service ay mission daf cee am aussi mission d'encadrement et d'assistance aux autorités mën na nekk autorité administrative comme mën na nekk autorité municipale xam nga service d'hygiène dans les temps sax service municipal la woon maire yi ñoo ko yoroon ci seen biir nga xam ne ñoom ñoo ko daan pourvoir en tous les moyens donc bien que léegi am na service euh, euh, national teewul ba léegi prérogative yooyu ak man leen a fexe ba marché yi sax ñoom ñoo ko ñoo ñoo ko yor boo gisee sax waxtaan yi ni waxtaan ak moom ñoom ak ak dina encadré moo tax ba ñu for ba ñu fixé ay date date date de fermeture ak date euh, d'ouverture parce que dañ leen xamal ne marché yi dafa war a am date yoo xam ne dañ ko war a nettoyer dañ ko war di désinfecter mm-hmm. donc wax euh, donc sunu sous-brigade yëpp yi nga xam ne ñi ngi nekk en relation ak maire yi def na liggéey boobu ba ba maire yi véritablement appuyé leen ci opération boobu moo tax ma la traitement yi def nii dañoo gën a def ay focus ci lu mel ne marché yi parce que nit ñi toujours dañ fay dem te loolu bokk na ci mesures yi njël yoo xam ne actuellement systématiquement marché yi dañ leen di fermer am heure euh, ak fermeture service d'hygiène mën fa jaar euh, kii def désinfection yi euh, nettoiement bi war a am boobu moom mi ngi am donc je pense que daal comme ni nga ko wax engagement yi ñu gis. Mm-hmm. ah xalaat nañ ne. Euh, buñ ci génnee service d'hygiène war na mën a amaat doole joo xam ne nii moom lañ koy séenoo. Euh, docteur dañuy jeexal ci euh, mesure bi nga xamante ni boobu léegi ñu ngi koy romandaat amagul maanaam mais ban jàngat yow nga si am confinement au Sénégal général je veux dire. est-ce may mu rebondir sur Madani. très très rapidement ndaxte li ñu des si temps boobu réewul. mais gis nga Madani ak Babacar yi Moustapha yëpp danoo laal mbir mi mhm. gis nga. le marché ak l'hôpital ñoom ñaar ñëpp dañ leen di considérer comme des établissements publics c'est des établissements qui reçoivent du public où interviennent justement le service d'hygiène en termes de prévention ba tax na l'hôpital doit étant un établissement public doit disposer d'un service d'hygiène hospitalière service d'hygiène hospitalière. Et j'ai même constaté que c'est des éléments du service d'hygiène qui sont à l'intérieur de ces établissements. Ça ne se justifie pas. Ils devaient disposer de leurs propres ressources humaines. Au niveau des marchés, c'est les maires qui collectent justement juuti yeeg nangam ak nangam en termes de recettes. Mm-hmm. mais leur devoir d'entretien et de nettoiement est-ce que nu ngi koy def alors qu'ils devaient le faire au quotidien parce que ci sa biir kër yow le conditionnement du UCG mooy dugg sa kër génne mbalit loolu la ñuy tuddee le conditionnement conditionnement bi ak collecte bi collectivité bi moo ko war a def ñi transport bi ak évacuation la ñuy def traitement bi sax c'est à un autre niveau kooku c'était pour préciser su ne confinement je l'ai dit redi si redit irréaliste est irréalisable et même un danger de santé publique pour le Sénégal et si jamais nous def ko on va se mordre le doigt mhm. pourquoi je l'ai dit parce que le confinement dafa am raison am des conditions mhm. la raison mooy suñu demee ba les cas communautaires se multiplient il faut confiner pour identifier les les zones les plus infestées faire intervenir le service d'hygiène pour des mesures de désinfection et à la limite damay naan c'est une même des conditions sine qua non de confinement il faudrait que le service d'hygiène dispose de suffisamment de moyens en termes de personnel en termes de moyens en termes d'équipement pour intervenir dans des situations de masse puisque confinement conditionne est conditionné par une intervention du service d'hygiène de masse mais gis nga benn am na yeneen condition je préfère passer sous silence mais bii c'est une obligation voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. le service d'hygiène euh, le traitement également est une autre dimension mm-hmm. parce que suñu demee ba confiné il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle euh, un diagnostic de masse plus maintenant un traitement de masse et en ce moment les hôpitaux ne seront plus habilités so seront plus habilités à recevoir les malades. merci ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom docteur Amadou Ba nekk fonctionnaire à la retraite nekkoon tamit directeur d'hôpital jamono ji muy enseignant chercheur en politique sanitaire di la jaajëfal ci wuyu si bi. merci maa ngi lay remercier et puis toujours à votre disposition. ñu ngi woon it si plateau bi ak commandant Moustapha Kane ingénieur de génie sanitaire di chef de la division éducation à l'hygiène commandant ñu ngi lay sant di la gërëm si teewaay bi. waaw jërëjëf ci invitation bi parce que permettre nañ ñu. ñu waxtaan ak euh, suñu mbokk téléspectateurs yi parce que épidémie bi moom kenn ku ne da ngaa a am taxawaay boo xam da nga ci waxaw te bi ci bi ci bi ci ci jiitu nag mooy ñu respecter les règles d'hygiène yi nga xam ne nii ñu ngi leen koy wax ñuy raxas loxo yi ndox ak saabu ba mu set euh, euh, di fi ñu toggee yëpp ñu ñu ñu ñu koy setal bëggoon naa nag nga may ma tuuti ci affaire désinfection parce que léeg-léeg damay gis ne day am confusion comme lii sa sa kii léeg-léeg day am ñoo xam ne ni dañuy dañ loxo bu tilim ndox ak saabu nga koy raxase mm-hmm. loxo bu tilim maa xam da ngay liggéey mën mm-hmm. nga nekk un ouvrier wala nga génn ci biti ba xam ne gis nga sa loxo tilim na loolu doo ci def gel antiseptique da nga ko war a raxas ak ndox ak saabu mm-hmm. te même boo yemoon foofu sax baax na mais boo nee ci bureau wala nga ne ci lu mel nii di liggéey say loxo xam nga eh, kiiw tilimut mm-hmm. mais yaa ngi lu nuyoog nit ñi ñi ngay nuyoo xamuloo est ce ñoom nuyu nañ koo xam ne kii mm-hmm. kooku moom mën nga de temps en temps nga sa nga jël sa jël désinfecté say loxo dañuy wax ne désinfection lu set ba pare lañ koy def mais dangay gis moo tax ma ne coordination bi war a am ci service yi am na solo parce que mm-hmm. léeg-léeg da gis sax eh, service yoo xam dañuy joxe ay gel ci yi nit ñi di tàllal loxo ñu leen koy defal manque de coordination waaye loolu dafa nit ñi dañ ko war a xam ba ñu xam ne raxasu bi kese ndox ak saabu mhm. loxo bu tilim moo ko moo ko tax a jóg boo demee nag ba war a utiliser na fekk ne sa loxo dafa set ba pare loolu tam bëggoon naa ko préciser ci merci commandant di ko jaajëfal jaajëfal it euh, Madani Sy euh, bu secrétaire général syndicat national des travailleurs du nettoiement ñu ngi lay jaajëfal euh, sëñ bi Assane maa ngi lay gërëm surtout di am tey jàngat naa fi lu bëri surtout avec docteur mhm. ak commandant commandant Euh, jëlee naa fi xam-xam bu bëri daal macha allah et di lancer appel rek surtout wax ni UCG am na lu mu lancer bu tudd zéro déchet alo alo déchet pour que képp koo xam ne am nga ay jafe-jafe ci sa koñ ci wàllu mbalit am na benn numéro vert boo xam ne ni à partir du 17 avril lañ koy lancer. Mm, muy lundi. voilà à partir du 7 avril mardi à partir du 7 avril. pour que képp ku am jafe-jafe sa koñ ci wàllu nettoiement am na benn numéro vert boo ko boo ko boo leen wooyee rek automatiquement le la brigade d' intervention rapide dina ñëw jël ko beneen bi aussi mooy que am na ay points propreté ñu ñu def partout ci capital bi surtout nag di ci gën a am innovation muy au niveau de la décharge de Mbëbës am na benn point propreté bu mag kuy dugg di nga raxasu kuy génn di nga di nga di raxasu donc euh, commandant dafa am léegi lu am wax comme ñun ci salté la ñuy liggéey mm-hmm. dama ne bi am na solo parce que sa day takk mm-hmm. quand quelqu'un travaille dans les ordures donc je pense que ni tey gars yi ngi insister naan pourquoi jox ñu gel c'est parce que effectivement parce que xamuñu mm-hmm. mais je pense que tey savon bi am na solo ne serait-ce au moins pour que nit ñi raxasu beneen bi aussi pour terminer di lancer appel président de la république président Macky Sall yow laay waxal mm-hmm. ak ce gouvernement ñu jàppale waa nettoiement mettre leen dans les conditions de performance jox leen ay primes supplémentaires par rapport ak contact bi nga xam ne moom lañ nekk ci wàllu jàngoro bi parce que tamit ñun ñooy jël mbalit ñu feebar ñi donc forcément fook ñi koy liggéey aussi ñu mel ne ci ay conditions ba pare di renouveler les équipements de protection individuelle mm-hmm. pour que travailleurs yi war a mun a def seen travail dans euh, dans de. daal di numéro vert bi nga doon wax pour terminer. voilà donc numéro vert bi en principe euh, dafa mel 202 1 2 3. alors 202 1 2 3 muy numéro vert bu UCG muy seen service de réclamation ku am mbalit euh, sa kër wala sa mbedd boo xamante ne ba nga ñu ñëw dindi ko c'est le numéro qu'il faut euh, composer 202 1 2 di leen jaajëfal euh, suñu invité yi ci disponibilité bi di jaajëfal it mbokk yi ñu doon seetaan booba léegi fii la ñuy yem ak yéen si seen émission feggu ci coronavirus jaa ngeen jëf ba beneen incha allah